information bi déjà mën na déstabiliser et que xëy na sax euh, véracité bi crédibilité bi dafa des. loo jàngatee yuuxu yi nag tàmbalee jóg si suñu naataangoo yi ne ñi nga ñuy delloo ca la ñu nekkoon et du lii lañu waxoon. Euh, waaw soxna Fatou Thiam maa koy suivre effectivement. Mm-hmm. Euh, li ma ciy njëkk def ci jàngat mooy effectivement question bu sensible la. Mm. mbiru armée ak force de sécurité de façon générale. Mm. Euh, lu sensible la dafa am nu ci war a waxee ci àdduna bi yëpp sax dëkk yi gën a am démocratie dañuy encadrer information yu jëm ci wàll boobu. Mm-hmm. parce que effectivement mën na déstabiliser réew et cetera et cetera euh, journalistes yi ci wax aussi war nañu respecter seen déontologie ba xam ci yu mel noonu. Mm-hmm. nuñ ci euh, waxee kon loolu tamit mënul ñàkk ñu fàttali. Mm-hmm. journalistes itam seen déontologie. ci wàll boobu. Euh, ñaareelu jàngat mooy gis naa keneen ci armée bi je pense colonel Ndaw mhm. muy wone ni euh, acte bu légal la et amul benn jafe-jafe. ko mhm. kulli xaal kon le débat est euh, ouvert. Mhm. ñetteel jàngat bi boobu nag gis naa ni lu jara jàngat lu aussi ci wàll boobu. li may faral di wax les les limites du populisme. dafay feeñaat. am na ñoo xam danañ gis ne Imam Kanté dafa contre xaw ma coalition Diomaye Sonko Pastef nangam ak nangam. xëy na seen xel moo toll foofu rek mm. mais ay analyse lay def ni contre kii nii lu neex diw mooy que ni euh, tey jii ñii ñu jàpp tey quel que soit motif bi tax ñu jàpp leen bi fi nguuru Macky Sall nekkee doon nañ jàpp ay journalistes yoo xam ni nit ñi dañuy génn di wax ne on s'en fout ci motif bi mm-hmm. dañ leen war a bàyyi ñu wax parce que liberté d'expression Pape Alé jàpp nañ ko fi ci dossier yu sensible mm-hmm. ay documents yu fuité ak ñeneen ak ñeneen vente d'arme boobu génn nañ ci wax ci ba ñu woowee ñooñ wala jàpp leen nit ñu yuuxu jaay doole dictature nangam ak donc mënuma comprendre. Mhm. tey ji <laughs> ay autorité moo xam procureur moo xam di woo ay journaliste d'ailleurs juste pour déglu leen que ñu commencé encore di wax ne doy na waar doy na waar doy na waar donc. ña nekkoon ci opposition bi tam doon def loolu tey ñu nekk au pouvoir ñu gis ne ko ndekk question yooyu c'est pas aussi simple que ça. Mm-hmm. loolu laay tuddee les limites du populisme. ñi nekkoon ci pouvoir bi itam nekk tey ci opposition bi ñi ngi wax ne intimidation la finalement doo comprendre. ah gis nga <laughs> donc les les et les positions dépendent du bord. bi nga xam ne foofu nga nekk. alors que ñoom ñii tey dañuy waroon wax ne. Euh, ñun lu mel nii lañ doon def parce que état bi aussi waruñ ko déstabiliser. Mm-hmm. ngeen ñi ŋàññ ci euh, loolu et cetera donc loolu c'est important. Mm-hmm. bàyyi ci xel. Mhm. Euh, bu ko defee loolu mooy tax Sénégal di mën a avancer euh, ci ñu gérer état bi de façon correcte. Mhm. Euh, ku nekk tam ak sa cër ak secteur bi ngay liggéey ñu bàyyi la ak sa àq yelleef mais yow tam nga bañ a jéggi. say àq ak yelleef. ku nekk am nga déontologie boo war a tënk sa bopp. Mhm. boo ko jéggee tamit war na am soit ay avertissement soit ay nangam yoo xam ne day dal sa kaw. parce que bu dul loolu nit. féeteerlu lu naturel la ci nit. loolu moo tax foog mu am loi. ay garde-fou ay garde Euh, am na ay temps nag Sénégal dafa mel ne am na ay nit ma dégg leen fi ku leen topp réew mi waratul am garde-fou. Mhm. lu neex waay def lu neex euh, li yëpp nii euh, je rejoins maître Ndiaye nañ ciy jëlee leçon. Mhm. ànd ak dal xool l'intérêt de l'État. l'intérêt général du pays waaye bañ nekk xool say règlement de compte say mhm. intérêt personnel di dawal loolu ci pénc très bien imam alors li ñu wax aussi. tiré ko peut-être comme conclusion sax ci article de presse yooyu ak yeneen biir mooy Sénégal instant bi euh, dafa nekk sous une menace de déstabilisation très sérieuse ku mel ni Juan Branco dootuñu ko présenter ci Sénégal c'est un avocat français franco-espagnol confirmé na ne Sénégal euh, jamono ji ay forces dañu jóg pour déstabiliser ko mm. alors un citoyen sénégalais bu déggee loolu un acteur de la justice de surcroît te ñu déggoon fi ay mbiri force occulte force spéciale xelam dafay tey normalement wala jàppoo ne y a une menace vraiment euh, pour pour pour état bu mënti doon euh, menace moom du du looy tëdd rek ne noo amul menace parce que li ma wax sànq rek à tout moment euh, ça peut partir en vrille comme on dit hein. Mm. donc li ci am solo mooy dal bi benn mooy aussi suñuy force de défense et de sécurité qu'il soit qu'elle soit alerte mm-hmm. parce que am na si loo xam ne c'est des c'est des questions Euh, estampillé secret défense yoo xam ne xëy na peut ñun du ñu agsi suñu niveau. Mhm. mais daal xam naa ne pour le petit politiste que je suis lu déstabiliser réew quel que soit euh, réew bi mu doon. ak mhm. force bu mu a am lu ko déstabiliser lu yomb la maintenant nag li am solo mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñoo ŋànk suñu sécurité. Mhm. qu'il qu'elle soit alerte mooy ces forces de défense et de sécurité là et puis ñun à l'interne que ñu def lu luy jur jàmm parce que Sénégal aussi quoi boo xoolee. dafa repositionné wu sur le plan géopolitique mm-hmm. parce que am na ay ressources yoo xam ne léegi feeñ na am na gouvernement bu bees régime bu bees donc Sénégal dañ koy dañ koy passer au crible au kañ mm-hmm. fin xool lan moo fa am am na xëy na amaana ñoo xam ne suñu position wala fii ñu toll nii amaana neexu leen wala ñu ngi ñu koy ñee mën nañ fexe ay mbir donc loolu tamit lu am solo la lu ñu mat a bàyyi xel la mais daal li si ëpp solo mooy de manière endogène mooy ñun les citoyens sénégalais nos forces de défense et de sécurité euh, voilà qu'elles soient alertes lépp lu ñu war a def pour mu daal pour euh, mm-hmm. sécuriser suñu réew ñu def ko mm-hmm. je pense que lool loolu laa ci mën a wax pour le moment mm-hmm. imam gëm nga ne dañu nekk sous menace de déstabilisation Euh, waxoon nañ fi ay forces occultes nit ñi tiitoon force euh, spéciale. je reviens toujours à la à la à la, à la pratique politique. Okay. Euh, euh indécente et trop crypto personnelle. Mm. que le gars le même langage revient. Mm. c'est-à-dire que ni président Macky Sall sous les derniers mois. il invoquait cette affaire de menace. ba bëgg sax reporter élection yi je me rappelle bi muy reporter élection yi. il parlait aussi de nous ne sommes pas seuls. Mm-hmm. ma ne benn président lu muy wax on y' a pas un pays a rien de mais dafa mm-hmm. manipuler woon question boobu. tout à fait j' ai un ami d'ailleurs très intellectuellement et tout. Mm-hmm. Mm-hmm. boo xam ni dañu clash man moom sama WhatsApp. Euh, parce que dafa ne ma non imam nag cette fois ci bàyyi bàyyi président mu doxal <laughs> parce que am na yu mu xam te xamuloo et cetera. am nga di wax yooyu. bon pour dire ça me rappelle la fameuse anecdote président Macky ci affaire pétrole bi bu mu ne eh, ñi xam waxuñu. ñi xamul di wax. loolu moo indi problème bi. Mm. ma bind sama page xaw ma fan ko. ma ne ko kon ñi xam nañ wax. <laughs> tout à fait. Ah, bu ñu waxul dañuy bàyyi. Eh, eh, eh, gis nga gis nga mm. contradiction mm. l'espace ak ñi mm-hmm. voilà kon fi nekk nii ñi nekk ci pouvoir bi tey itam ñoom tam fi nekk nii ñu ngi utiliser presque le même langage. Mm-hmm. Euh, déstabiliser Juan Branco boobu ku jar a moytu la mm-hmm. ku jar a def ndànk la parce que man quand même vraiment je pense que on lui donne trop d'espace pour quelqu'un qui n'est pas sénégalais. on lui donne trop d'espace. Euh, te te mouvance bi ko fi jox espace yu xam nañ leen. ba léegi moom jox na boppam benn cër boo xam ne ci réew mi. Hmm. man ça me dérange personnellement. bon si Juan Branco boobu waa joo xam hmm? naa ci wax parce que man am na benn moment boo xam ne. am na lu mu waxoon par rapport mooy hmm. arrestation Ngagne Demba Touré beeg yooyu bon quand les collègues se sont voilà mu am lu mu waxee euh, effectivement li imam wax lay dëggal genre dama def benn post et j'ai répondu je dis que je le réponds pas lui ah, parce que wóoruma ne sama message dina yegg ci moom mm-hmm. mais je réponds aux Sénégalais qui le suivent et qui pensent que lépp lu mu wax dëgg la uh-huh. et j'ai montré les limites de ce qu'il mm-hmm. avait dit donc voilà c'est quelqu'un qui est vraiment peut-être c'est un avocat qui a sa mm-hmm. liberté et tout mais mënuñu war a gën xam suñu dëkk aussi donc daal nañu tey comme ni imam wax ci yenn yi xam ne daal